waaw bàyyi lu tax nga joxoñ ko. nee na baaraamam bii. nee ci moom la jëm. bii. ah ñaari joxoñ la nii la def. jël leen image bi. benn joxoñ bi ci chef bi la jëm benn bi ci moom la jëm. ci xalifa bi la jëm. nee da ko sa aajo. faju na ci man. am na leen loxo yi. منك اللهم على اللهم وسلم الإنسان وما bàyyi nga may ñu rek taxaw fi nga bi ngeen xam ne gàmmu gi sëriñ bi ni mu koy ci tànki gàmmu gi ci soññi bu mu doon soññee ci gàmmu gi ak ndigal yu mu doon joxe dégg ngeen cheikh bi looloo tax mu jóg ñëwaat foog ñëw sëriñ baa ngi woo woowaat ñëpp ci gàmmu gi na taalibe yi faw na na na donga yi faw na xale yi faw mais bëggoon na ki mu àndal mbokkum soxna njiitu réew mi nee na dafa ànd ak koo xam ne mbokkum soxna njiitu réew mi la li tax mu ànd ak moom daf ko daf la ko doon dénk moo bëgg itam luy sa yitte ci dëkk bi loo soxla ngir dimbali taalibe yi nangu ko wax dina la ko defal lu raw na ko bëgg dama bëggoon nga ñaanal ko ndax dama koy indi rek ngir dénk la rek nee na moom tànkam gudd na dafa dal rek ndax ñun dañoo ni sa kanam dañ naan teg